nii. ah. ci loolu nag. koor gi koor gi koor gi Fadam moo def feeñoo si man de Fadam. mais seen jur nu ngeen di seen diggante ak Tapha Tine taay da ngaa laxatu rek combat bi nangoo cee wax di lan la. mais Fadam maa ngi lay eh, eh, seen jur fay la. di ziare gars yi seetaan live bi yëpp di leen di baal koor di leen ñaanal jàmm ak tawféex. dëgg la dëgg la. waaw ah, mooy yam xam ama damaa xawoon a kii rek xam nga Modou Lo kii bi mu paasee rek booy ñaa bi. waaw après tuuti. quoi xam nga coono daa xawoon a bëri quoi. léegi nañu yaay coono ma ak yow. <laughs> non faram man àjjuma laa judd yow àjjuma nga judd coono li xajul dañ bàyyi noonu rek. mais ndax mën ndax Balla Gaye mën naa daal ko daal. faram loolu soriwul mu ngi suñu kanam. non sëriñ man li ma lay laaj ndax Balla Gaye de bi daanoon Tapha Tine ak Balla Gaye bii ñu gis ndax benn la vote bi voilà xam nga xam nga combat boobu noonu dafa nekk combat boo xamante ni le vingt et un juillet la gars yi nee nañ comme ni ko waxee sànq rek Tapha Tine ñi daan Balla Gaye daan na leen ñii dalen leen daan si dalen leen blessé ñaar yu dalen blessé ben bay avertissement ñi ñi ñi mu bëreen bar bi nangu seen loxo ñi mu dan leen deug la mais mom mom mom ci bopam waaw mom buñ dàqee ñëpp bañ bañ bañ des si géew bi waaw mom buñ sifflé dañu xajal gëw bi sëriñ Diop sëriñ Diop tafatin mi dan ëmm seen la la wax ëmm seen dan bàll gi de tafatin ñëw dan ko mm. bombardier dan balle gi de Tapha ñew ñëw daan ko waaw moy sa xarit mi job borom Pikine ni nga mujjee jëflanteel dan balle gi de Tapha ñew daan ko mom kan moko ko daan moom Balla Gaye ko daanoon à l'époque waa jëf mom mom mom na daan ñëpp yàlla mu job jeex mom mom kan moko ko daan mais nak Tapha mi nga daanoon ak Tapha mi ben la tamit tama ñam la ci ben affaire da am luñu bokk maa mom lan ngeen bokk moy mom isa Pouye ko njëkk daan man isa Pouye ma njëkk daan kii septième combat kii sixième combat. waaw. Mhm. kon am na kon tafaat kon kon kon Issa Pouye moo njëkk a jox Balla Gaye defet moo mu moo njëkk a jox tafaatin defet mais tafaatin tafaatin di jëmi boppam. dama ne la boo doon sifflé luñ bëree woon ak moom duñ ci bàyyi dara ci kawam la jëm. Serigne Diouf euh, euh, waxuma tafaatin numéro deux numéro un bii dëkk Bawol laa Amdi am bi bëre kii Eumeu Sène bi passé laa la wax c'est que xam nga Sénégal day gaaw fàtte est ce xam nga ne tafatin bi Balla di bëreeg moom Balla Gaye bi bëreeg tafatin parewul Balla Gaye deux mois la préparé moom wàccal téléphone bi tuuti man est ce xam nga bi tafatin parewul woon Balla Gaye bi tafatin parewul mais deux mois la préparé préparé combat dafa nekkoon caravane Casamance affaire yooyu noonu deux mois la ko préparé deux mois. Balla Gaye bi muy daan Baboye daa contact rek ñëw daan ko entraîné wul sax. Serigne Ndiour lan moo nekk ci Balla Gaye numéro 2 ba ngay waxee dënn dëggal sa bopp ne Balla Gaye daan Tapha Tine. non Tapha dañ ko mën Fadam boo bëggee dégg-dégg dañ ko mën. gars mën nañu yuuxu wax wax wala na dem fu ko neex na entraîné ji na dem sax di yanu ay ay ay ba ay bateau di di xëcc ay avion mais bu arbitre bi bu arbitre bu ñu génn géew bi ñu jàngal ko bëri jàngal ko xeex. boobu ba nag ñu ngi fi nekk gars yi di wax rek di wax rek di wax naan ni Balla Gaye jeexal di wax di wax boobu ñun dañ doon dañ daal suñu nekkoon rek mais bis bu ñu ñibbisee bis bu ñu ñibbisee ñoom dinañ noppi. lan moo tax nga ne bu ngeen ñibbisee lan la lan moo ci nekk. parce que dinañ am lu leen parce que leen bett. Serigne Diour ban Balla Gaye moo nar a dajawaate Tapha Tine. Faram man dama bëgg gaa yi xool gaa yi gis man du ma wax. man xam naa li muy daj xam naa li ko jaral xam naa ci lu mu nekk. Chinois yi commencé dinañ de Chinois yi commencé dinañ de. xanaa mu bañ a bëgg Balla xanaa mu bañ a bëgg mais bu bëgg. mën na mën na mën na jàngal tafaatin bëre jàngal ko xeex déggoo ma la tafaatin bi ma daanoon tafaatin boobu moo gën a baax tafaatin bii. Serigne Diour tafaatin bi Balla Gaye daanoon bu njëkk ba. damal nga seetaan ko bu baax tafaatin boobu doole ji mu yor jàpp Bombardier xeex ak moom baar bi nang ko ci ay loxom mu jàpp Elton duma ko baar bi nang ko ay loxom daan Abdou Diouf daan. teg daan booy sëy ñëw Balla Gaye ne ko doo xeex doo bëri. Hm? bilaay walaay dama ko dax bi mu génn saaku yi. Fara ma ko loxo ba xam ne loxo droite bi mënut a ñëw gars yi ay da koo liggéey da koo liggéey du gis ak yooyu loxo ba aj moo tax mënul dóor. <laughs> waaye dafa ko xam de. chinois yi chinois yi commencé dinañ de maanaam lan mooy sa problème lan ngeen yëg ci combat bi ba tey ji ma gis geen teel a dëggal seen bopp. yéen a ngi seen bopp ci combat bi yéen a ngi da ngeen teel a wane seen bopp Serigne Diouf da ngeen teel a wane seen bopp lan la. non non Fadam sax boo xoolee sax ñu depuis ba léegi waxuñu de boo seetloo. ñeneen ñoo fi nekkoon di wax. attention non boole moom nee nañ euh, ñëw daanu la ci am. waaw man nag boobu nag moom ci boppam moo ma ñaan ne ma bul waxagum bul waxagum ci combat bu ci wax. comprendre nga mais instant bii nag dañoo dugg si ñuy weer yoo xamante ne wax daa jot. kon pare dafa am moom dafa pare ngeen pour communiquer ci combat bi nii. dafa am weer yu ñu mënee ñun suñuy weer lañ commencé di dugg. moom mu wàcc yeggal yi. mais mais Balla Gaye de fan la toll ci préparation bi nekkee intérêt de parti Serigne Diouf. Hmm? fan la Balla Gaye toll ci préparation contre Tapha Tine. waaw mu ci mu ngi ci ay entraînement xam nga foofu moom boo fo nekkee fadam ah entraîné tëdd foo jëm. moom foo jëm ay professionnels ñoo lay wër. comme Tapha Tine mu nekk tamit day entraîné tëdd moo ko fa yóbbu mais problème bi mooy finition bi ci biir géew bi fa la li ne fa dam diggu géew. Hmm. bu ñu seetee ba làmb ju ba génn gars yi ne ko kii pare nga pare na par génn ci diggante ci lay xam ne ndox bàyyul yoonam quoi. Serigne Ndiour su ma la déggee yaa ngi dëggal sa bopp ci diggante Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine na la Balla Gaye 2 defoon Tapha lu ko raw la koy def lu ko raw lu ko raw non ndax Balla Gaye mën ci lu Serigne Ndiour ndax Balla Gaye de mën naa def tafatin lu ko raw tamit Serigne Ndiour xam nga gars yi dañ buñ ñëwoon buñ ñëwoon laajoon yaa oustaz biñ dem leen asi ndox yaa ngi koy fàttaliku waaw Modou Lo waaw na dem laaj ko bu baax soxla ci làmb non loolu code kon man ma ñëw ci bu dee code la dama dégg ñu ne Balla Gaye dafa bëgg a nekkaat roi des arènes ndax mën naa allah. rek laa lay wax Fadam. fa laa yem. <laughs> Serigne Ndiour Tapha Tine li performance bi def ci làmb toog dix ans daanawut ci làmb. waaw dix ans yi mu toog daanawul dix ans kan la daan ci dix dan na ci boppam ñi waaw dan ci am a boña bo mu jek boña nan la leen daane bo bar bi nangu la ci loxom da am wit gang ah bañ a wëlwit gang dan am seen bato ci ko nga am rul wëlwit gang wa avant mu dan am seen la la daj mais la bari do la am seen da door mu door Serigne Diouf dafa mel ni da nga fatte tabatil ay minimum ci lamb Tafatine champion la champion la nee naa la Tafatine. dix ans jox nañ ko cër bi moom champion la Tafatine mën na nekk roi des arènes dégg nga yàgg naa la ko fii mais moog Balla Gaye seen bëre yi dafa juwaloo Fadam bu ma dugal ci kaaku loo làmb ji ma ciy wax nag. du ma la ci wax du ma la ci wax benn code mais seen bëre dafa juwaloo dafa am mbër boo xamante ne ni muy bëree dalaa arrangé booy ñaa mbër boo xam ne day dal si kawam xam ne day maam ci doon da ko comprendre nga mbeur buy benn bennal arrangé wuko modlo boy Lo booy benn bennal ak mom doo ko daal yow Fadam Fadam bu wax lo xam nga lima lay wax bu baakha baakha dara la xamul ci lay wax dara. wa bu ko <laughs> ma bu ko xam. parce que ñom ñaar mais man dama war da nga fàttali Tapha Tine mën ndax tay ji Balla gi de mën ta jël gri Bordeaux jël jël Boy Niang am ci bi victoire am ci bi defaite ah tey jii nga bëgg a jël Balla Gaye 2 tekk ci kaw Tapha Tine Serigne Ndiour da nga fàtte kan mooy Balla Gaye numéro 2 da nga fàtte kan mooy booy Tapha Fadam xam naa Tapha bu baax a baax seetaan naa ko bu baax xam naa nu muy bëree xam day palaake xam naa day takk yaa ngi wax ji xam naa ko bu baax a baax nu muy bëri mais dama ne la. Mhm. Tapha Tine ak la Gaye le 21 juillet bar bi sifle ba génn ci géew bi. ne leen bëree yéen ñaar boobaa laa la wax liñ to doon def duñ ci bàyyi dara dañ koy duma daan ko. Serigne Ndiour moo fu ma dugg ak yow ndax xam naa ne yow mii tey jii am na loo yëg Serigne Ndiour ndax Balla Gaye ñeme naa dox ci kaw Tapha déggoo lu ma la wax ñun duñ déglu benn mbër. Serigne Ndiour ndax Balla Gaye numéro 2 ñeme naa dox ci kaw am di ba Tapha ci kawam la jëm. Serigne Ndiour ndax Balla Gaye numéro 2 ñeme naa dox ci yow Fadam ah yow doo dégg booy son nopp yi neexul wala bu nekkee doon dégg nga tëj bi bokk nga takk ay kàcc nga dégg li lay wax. bu bi sifflé laala wax bu bi sifflé amul lu ñuy déglu si moom dañ koy duma daan ko dañ ko xaar ci lenn. Serigne Diouf foo teg combat bi. waaye fan teg mooy ñun ñun xam ne ñoo ko mën rek ñu liggéey ak suñu bëri bi mën ci bëri mënu ko mën nañ ko jàngal bëri. gën a fit. Serigne Diouf fi nga teg combat bi ma. te man teguma la man dama la wax parce que dama la expliqué sànq del dafa am ñoo xam ne seen bëre dafa juwaloo ñoom ñaar bokkuñu. te le 21 soreetul. Serigne njur ndax Balla Gaye 2 nii nga yaakaar ne lii nga wax nii Balla Gaye mën na koo def ci contre Tapha Tine dox ci kaw Tapha ko daan ko ndax loolu mën na nekk. Fadam Balla Gaye amul benn mbër amul benn mbër laa la wax boo xam ne bu arbitre bi sifflé day taxaw foofu benn benn la ak amul. ba ci am na Moustapha Tine mii nga xam ne nii mooy ndaanaanu làmb ji toog dix ans ci làmb daanuwul nekk ndaanaan ndax Balla Gaye de guddi gi toll liggéey na lu mën a freiné waat Tapha Tine. waaye nag toog soixante bu bu mu daanu. yaa ngi wax ji li ëpp solo mooy bi bi muy gën a baax la ñu boole mu gën ma pare physiquement arbitre bi sifflé mu duma ko daan ko le vingt et un juillet tam arbitre bi sifflé damay dox ci kaw duma ko daan ko bu gën a gaaw sax bo xam nga bee dafa génnoon saako yi moom dafa génnoon saako yi moo tax affaire bu xaw a jël benn temps quoi benn yooyu noonu mais bii bu nekkee dafa taxaw wala gars yi roof ko fit damay ñaan sax bool bool roof ko fit ne ko demal dox ci kaw Balla Gaye <laughs> da ngay jàpp ne Tapha Tine ñi mënut a dox ci kaw xalaat même bu ko waxe buñu génnee gëw bi duko def def wu ko lateral lay démé ay déplacement lateral lay démé mais dox ci kaw Balla Gaye amul fit bi ñi koy wax fi ñëpp di wax ni ñëpp di wax ni nga dégg leen ci plateau yi ñuy wax ni yëpp di rof tangor ñom ñoom ñoo gën a xam ne gan gi ñemewul kon nga japp ne ñuy wax ci plateau yëpp dañuy roof tangor waye ñëmé ñemewul ba bi sifflé day dawar rek du taxaw l'animal maa ngi lay